xew-xew yi ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru janwaari bi nga xamee ne ay taskati xibaar daanu nañ seen kaw ñii ñu teg leen loxo boole ci tëj ay rajo lii la yëpp mu xew nag gannaaw bi nga xamee ne ñu ñooy oyee Three-Years jot na te nguur bi ñu daaxalu seen mbootaay bi ñu doon dox ñaxtu pour waa ngir kii di Adama Barrow mu tekki nombre tànkaam jubluwaayu waxtaan bi nag mooy pour ñu wax ak political parties yi liggéeyi taskati xibaar naka la mel ci réew mi waruwaayu nguur bi la pour ñu gis ne taskati xibaar yi ñu nekk ci jaama taskari xibaar yi ñoom itamit am nañ seen waree pour gis ne nag tas nañ xibaar yi nga xam ne nag dañ ko doxal ci yoon te itamit duñ ci doxal li nga xam ne nag mooy farfarlu eh, société nag loi bi nga xam ne nag moom moo jàppale politiciens yi pour ñu mun a yëngu ci wàllu politique comme nuñ ko bëggee eh, boobule loi tamit moo jàppale ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di taskari xibaar yi pour ñoom itamit ñu mun a tas xibaar comme nu leen waree. yeneen i saay dañ di am ay jaamaarloo ci wàllu ñi xam ne ñoom ñoo di taskati xibaar yi yeneen saay tax dañ di am ñi xam ne ñoom ñoo di politiciens yi dañ di eh, jot dañ di joxoñ ay baaraam yi tuuma eh, ci ñeneen ci nga xam ne ay nag yooyu moo dee xew def dee fekk ne ñi xam ne ñoom ñoo di taskati xibaar yi ñu ngi si seen yoon ah, man gis naa ne meeting bi important na parce que meeting bi nga xam ne la ñun as a political party di United Democratic Party gis nañ ne media bi is the fourth arm of government governance o nguur bi te ñun réalise nañ ne media bi dafa important ne moo dee make sure ne government bi mun si tànk yi nga xam ne wóor na te war nañ koo doxal gis nañ ne tamit media bi moo dee ee e nit ñi moo dee tamit jàngal nit ñi yu bëri yi nga xam ne moo nekk di xew si dëkk bi. mooy partner bu gën na important ci any political party parce que politique ñaar la politique li ngay wax la ak li ngay wone bu fekkee yow ah, a a political party bugg nga nit ñi déglu la. te bëgg nga nit ñi gis li ngay def nga am koo xam ne mu ngi sa wet lu ko lu amin te loolu mooy liggéeyam defe nag kooku moo gën a nekk partenaire bu gën a taxaw wala bu gën a baax ci yow. li dee indi problème mooy bu fekkee li nit ki wax ak li nit ki wone journaliste bi génnewut loolu mu génne leneen waaye man fiil naa ne anyone muy political party oo nit bu journaliste bindee loo xam ne ànduloo si lu mu binda defe naa yow sa wargal la pour nga taxaw ne déedéet li ma wax du man lii la wax. waxtaan bi bokk ne ci jéego yi nga xam ne GPU loolu lañ jël pour gis ne taskati xibaar yi ñoom dinañ mën a def seen liggéey te dara du leen ci fekka ci xeetu loraange ak métit fii ci réew mi xibaaru Kocc Barma fii ci Paradise TV Oumy Sow